asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu Abdou Samad Mbakke doom ci Serigne Cheikhouna Mbakke ibnu Cheikh Abdoul Ahad ci gàttal ñu koy wax Abdou Samad Cheikhouna tey nag ñu ñëwoon fas yéene am tuuti lu ñu bëgg a waxtaane ak mbokki àdduna yépp euh, mu jëm ci wàllu réew mi ak dëkk bi yaakaar naa ñàkkul ñu ñu gisoon fii bu yàggul ci benn taxawaay bu ñu taxawee woon ci jamono yi ci ginnaaw ci xew-xew yi paase ñu meloon ni ku ànd ak Ousmane ci wàllu parti Pastef bi loolu amee jot nañ ci dégg sunu kàddu waaye kàddu yee ñu joxe woon fekkoon nañu am lu ñu nar waaye li tax ñu def ko mooy ñu waxtaanu la suñu kilif bi ñu jàllee bi mu jàllee itam ah, kilifa yi ñu am ci dëkk bi yëpp waxtaan na ñoom ñoom ci lii ñuy bëgg a def ci lii ñuy bëgg a dugg xam naa néewaa na lu ma koy def mais tey dama koy officiel ñëpp def muy ci engagement politique ci gën fànn muy taxaw tey pour jàppale président de la république Macky Sall teg ko fu leer ak fu wóor ci bi ñu waxtaanee ak suñuy kilifa waxtaan ak moom ba noppi ñu déglu ko mu wax li mu bëgg ci réew mi ak coppeeku gi mu nar rawatina jëmale ko ci ndaw ñi surtout nag Touba lu ñu waxtaanee dëppooy xalaat mu sàkku ci ñi man ma bëgg ñu jàppale ko ma nangul ko ma waxtaan ci samay kilifa nangul ko ko ci biir loolu nag kon day jot ma wax ko àddina sépp xam ko man nag su ma nekkee ci dara duma ko nëbb ndax xawma ko waaye bis ni ko tey ñëpp xam ni fas yéene naa taxaw jàppale ko parti ba ma nekkoon doon ko jàppale génn naa ci ndax yu bari nag fas yéene ànd ak moom nag ci liggéey rawatina nag ci ndaw ñi nga xam ne ci laa bopp ci laa féetale sama bopp ma bëgg nag képp koo xam ne yaa ngi woon affaire am lu la naqari comme ni ma ko amee woon tàll naa loxo ñu waxtaan ku nekk benn fas yéene liggéey luy jëriñ dëkk bi te jaarale ko ci moom kon loolu moo nekkoon sama wax sama sama sama sama sama sama position tey ma ne wan naa dajale ñëpp wax leen ko bu ko defee ñëpp déggandoo ko ay responsable politique nekk ñu ngi fi toog am na lu ma waxtaan ak ñoom tënk ko te fas yéene ko te nar ko politique man awma lu may lu may lu may lu may yokk wala lu may wàññi ndax bu ma neexee ne mosuma am dara ci politique ci barkeb Serigne Touba laa doon dund xëy na lu ma lu ma bëgg la ngir lan am ci baat mën a jàppale ñi ma ñi ko ñi ko yittewoo ak ñi ma ko seqal ak it bokk ci réew mi war cee participer ku ma jàpp ni déggoon naa ak yow xalaat ma ànd ak yow ci loolu kon lii moo nekkoon waxtaanu tey wi ma bëggoon koo leeral ah ku ci am nag lu ma bëgg laaj. maa ngay déglu pour pour pour tontu la mais li ci des nag mooy li may wax toujours ni may ànd nit rek mooy làng ak moom respecté li ma koy wax moom it mu respecté li ma koy wax li li ma wax ñu ànd liggéey mu gis ci boppam mën a jàppale kii ko tax a jóg ndax kooku mën a am ndam kon nag ku ci am loo bëgg a laaj maa ngi leen di déglu. laaj boo doon laaj rek muy euh, mel na ni jamono yi euh, APR wala benn bokk yaakaar gis jafe-jafe à travers euh, le territoire national jigéen ñu ngi doon jàppante Fuuta aussi ndaw tax nga bàyyi ba heure bi xam ne nii mel na ni coalition boobu am jafe-jafe nga tànn dem fekki leen jërëjëf sëñ nan Ablaye ñu lay delloo nuyoo dama jàpp ni réew mi ak àdduna moo am jafe-jafe xëy na nag même partie bi ma nekkoon bu ma ci jugee jafe-jafe tax ma jugee ci xëy na am na ci loo xam ne dinaa ko mën a leeral am na ci loo xam ne duma ko mën a leeral ba tax na jàpp naa ni bu fekkoon ni lu am jafe-jafe ñu bàyyi ko fa kon lu bari na sax ci biir jafe-jafe yooyu nag ci laa bëgg a wane sama bopp ba jafe-jafe yooyu dañ rawatina ci fii ma dëkk muy Touba waxtaan ba jàpp ni war naa mën a nekk moo tax ma engagé wu bu ci topp Abdou Samad mooy bàyyi ndax politique waaw parce que laaj bi day xaw a kii ci man ci ni nga ko war laajee ak ni ma ko gisee président li man ni ko def donte nag àggul ci ñi ma raag loxoom mosu fee jub mu ngi doon def lim kémtalay kàttanam xam ni nag àggul ci ñamaraag moo tax mu am changement boobu ngir bëgg li muy def mu àgg ci ñu war a àgg ci war a jot ñëpp jot ci te yaakaar naa loolu ñu ci waxtaan tënk ko ci suñu ko ne defee yaakaar naa nañ ci am changement bu mag bismillah jërëjëf li nga tàmbalee mooy li nga xamagul bi nga ko laajee dina am la xam fi ma nekkoon li ma wax rek déception ak am lu la naqari xawma ko dama yaakaar benn baat bi la noonu li ci am solo mooy premièrement bu ma ciy dugg tàgguma kenn maa xool waxtaan ak leader bi ba war cee dugg dugg ci bi ma ci duggee ba ci biir it gis naa ci yu bari yoo xam ne ñun ñëpp gisandoo nañ ko man Touba am lu ma amit sëñ Touba la jàppoon naa ni xat-xat yi mu nekk ku ko nanguwul itam bi muy jeex kenn ku nekk xam na ni kilifa diine yi ci dugal seen loxo rawatina Sëriñ Mountakha yàlla na ko yàlla yàggal te gën ko wéral te léegi gisuma ni li war diggante ma kilifa diine yi mi ngi koy dox ni mu ware ndax boobaa léegi gisuma mu jël tànkam ñëw fi te ñun jàpp ni ñoo ko ci génne xëy na ma nga leen di seeti man nag awma lu dul samay kilifa foo leen teg ma teg la fa foo leen àgg ma àgg la fa ndax bi may dem ci moom xalaat ak programme la ma tëralal moo tax ma ànd ak moom ci loolu waaye nag jiitaluma kenn nag bàyyi samay kilifa ci biir loolu ak yii fi xew ci ginnaaw bi dëgg la naam ak ni réew mi jóge ak yàq yi ni mu bare man doxuma ci loolu dama am kilifa li sama kilifa joxañ ci lay nekk li mu woote ci lay nekk donc aussi su ma gisee ku wuteeg loolu nag sañ naa am naa sañ-sañu euh, sans gis-gis comme yow fi ma nekk it wax naa ko li tax ma jëm si fi am na ci loo xam ne dinaa ko mën a leeral am na ci loo xam ne nag damay préféré jëf ko ndax dama jàkkaarloog àdduna di wax ak ñoom te yaakaar naa danañ tasewaat tasewaat tasewaat su boobaa dinaa tàmbali lu ñu mën a teg bët danaa tàmbali lu ñu mën a laaj danaa leen mën a dutal dara génnoon fi nekkoon ci politiciens yi duma ci sori ndax jàpp naa ni kenn ku ne la nga jàpp ni man nga ko yaa ngi koy def man nag liñ ma soxlaa jàpp naa ni man naa ko te jàpp naa ni dinaa ko def te jàpp naa ni bu ma ko defee dinaa ko réussir lañ ma la ma la ma waxtaan nag. ak la ma xam ak fa ma bëgg a jëm damay delluwaat ci li ma waxoon kii rek dama fas yéene jëf ko dox ko ba dina sëpp ci seen bët ndax ci dëkk bi la jëm ci dëkk bi laa nekk am naa lu ma fi xam am naa lu ma fi man te loolu it bëgg naa ko wan. ko woon xam nga du dëkk bi rek moo ko tax a jóg ci ñàkk bokk gis-gis. moo waral waxtaan ba ngeen bokk gis-gis ngeen mën a dem ndax fa ma nekkoon itam dañ maa convaincre ci gis-gis ak programme kon suñu demee ba ab taxaw am sama diggante ak moom ma jàkkaarloo ak moom li ma naqari ma wax ko ko sama gis-gis ma wax ko ko lépp mu nangu kon du ma def lu dul nangul ko li ma wax ba keroog muy gis du ci rek man ñoo question dama leen fekk ci seenu tool ñuy bay kenn ku ne yaa ngi ci sawaar di bay ma dikk ci tool bi fës yéene koo yaatal fas yéene koo lëkkale ba ñu àndandoo su fekkee mën na nekk di yëkkateendoo di dóorandoo di liggéeyal nag loo xam ne mooy jëriñ askan bi mooy jëriñ dëkk bi dëkk bi mën cee gis seen bopp loolu rek moo ci sama taxawaay.